asalaamaaleykum mbokk yi alxaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV mbokk yi nag tey maa ngi fii seet si Serigne Hady si di koo xamante ni responsable politique la ci parti bu mag boobu ngeen di dégg di APR di bu président Macky Sall euh, président Hady nag am benn mouvement bu rëy bu mu ubbi de ko tànn président Hady ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. xaalis bi ñu lay fay. Hmm. di la wàccee sa wàccuwaay. xaalis Mbégi Diop Mame Ndokh TV. Hmm. est-ce que sa kër. merce beaucoup aada dama dégg ñu nii da am benn mouvement bu ñu tuddee tànn tànn mooy lan mouvement de soutien tànn hmm. tànn mooy choisir hmm. al muxtaar ki ñu tànn kan laa tànn hmm. son excellence président Macky sama waa ji léegi pourquoi le choix de président Macky Sall pourquoi nga tànn jëmele ko le président Macky Sall waaw xam nga ñun ay taalibe lañu ñun ci ndigal lañuy ñuy wéyee hmm. bi ma ciy dugg hmm. dama cee am ndigal ndigal bu wóor hmm. di ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te dolli ko leer si Abdou Aziz Al Amin mu sëriñ Babacar Si yàlla moom laa waxtaanal mu ne ma koy jàppale ma ne ko président Macky Sall la jàppale ma waa loolu de moo jaadu ndax yéen amu leen droit xeex état ndax ay doomu sëriñ ngeen mais ay njaboot ngeen ma jël sama engagement jël sama mouvement bind li may bind ñu wan ko ko ne ko lii de laa bind tànn ci waa wan ànd njukkee ci ngor képp ku ñu àndal ci ngor dañu ànd yow hmm. moo waral ndigal li ma nangu ko nag doxal ko mais est-ce bi nga bi la bi la joxee ndigal li nga commencé savante ak président de la république gis nga ni sa sëriñ moo la yebal ci nga dem def sa choix ci président avant la sa sëriñ di defal choix sax fekk na yow tànn ba pare mais mu tombeek sa ndigalu sëriñ ci le président Macky Sall est-ce bi ñu la jox bi nga duggee yëg nga ni ndigal bi ñu la jox tombee nag li nga doon wër ci moom. am naa sax lépp sama njort li ko waral mooy damaa def sama première sortie hmm. en 2013 ma ne man du ma jàppale ku ma xam hmm. ma def sama sortie ca Dakar. résidence Mamour yëgal ko président la son excellence à l'époque mu yebal mu yebal ay kilifa nag yebal soxna Mimi Touré yebal Thierno Alassane Sall yebal euh, Youssou Touré yebal Pape Mayel Thiam yebal Thérèse Faye Diouf délégation boobu defe naa ne ci jamono boobu mënta weesu ku président Macky Sall fonk ci laa njëkk def sama première sortie ne ko nag ci ndigal lañ ko teg ci laa commencé samay activité hmm. tabarakallah ba ni ma gisee président de la république ci référendum bi hmm. ci wii bi mu recevoir ñu pale hmm. mu tombeek vendredi ko ami gan da nga leen toggal añ président Soxna Mariam Faye toggal ñu añ boobu mat nañu cinq cent personnes ci salle de banque mboolem këru diine ci Sénégal ah ñu nekk faag moom bi añee pare mu berndeel ñu heure jumaa jot pale bi jumaa amu fa ñu julli tisbaar mu ànd ak ñun julli dañ hmm. jullee pare mu dañu ñëw recevoir ñu waxtaan ak ñoom boobu ba tey nag hmm. ñu ngi doxal ak moom hmm. mu xam yéen a ngi ak moom mais est-ce que ni président yore réew mi yow tey bu ñu la doon laaj est-ce que négatif wala positif lan ngay wax mais man dama naan positif parce que président bi ñu koy jàppale sampagul fii mool Tiwaawan mool dafa góor Tiwaawan tey am na fa ay bâtiment yoo xam ne moo ko fa def te bañ ko waxee dañ ne ah nañ yaakaar ndax ñi fi jaar dañ daan wax dem hmm. moom mu ñëw wax jëf dégg naa ci baatu sëñ Moustapha Sy Al Amine hmm. bi ñëwee di ko wax dane ah, ah rek noppi moom sëriñ Abdou moom Moustapha bu Al Amine laa lay wax ah, ah, biñ ko biñ ko ko waxee mu ne moo ko nettali ci asura hmm. ne bi ñëwee di ko wax de dañuy defar fii président di defar fii dane ah rek daal di noppi ndax ñi fi jaaroon daan nañ ko dig te defuñu ko président fee jaar def defaat defaat mu nekk nii te bala nga xam njëriñam gàmmu na ñu tombeek nawet bu nawetee nga xam ne njëriñu liggéey bi am na solo bu ñu ko xeebal de xeebuñu ko déwén déwén jéeg gàmmu Tiwaawan day ci biir nawet muy taw waaw da xam li njëriñu salle de réception bi ak résidence bi moo tax ma ne la négatif amu fi positif moo fi am. mais est-ce que jàppoon ne président de la république du Sénégal ni ko Tivaouane def parce que ci élection yi passé présidentielles yi gis nga ni Tivaouane en unanimité dañ ko jox li nga xamante ni mooy seen carte. mais est-ce que de retour le président de la république delloo na njukkal Tivaouane ni mu ko war a delloo njukkal. waaw mën naa wax ne sama gis-gis man Tivaouane ñoo ko fal. son excellence président de la république. ñoo dëkku Cheikh Sidi bi moo ko fal. dafa fekk rek du sotti am borom. man xam naa ci lu bëri. parce que élection yi toll na man foo xam ne nii. toll fa président Macky Sall ndax ndam man ndam li ba léegi maa ngi koy savouré gis nga xam nga loolu. 2019 hmm? ba fi may waxee yoon yi man maa ngi koy savouré. ndax ndam gënul rëy ni ndam loolu ci man ndax xam naa fi élection yi toll woon man xam naa ko man fi ma toll woon toll woon ko samay kilifa mais toll woon ko président moo tax ba léegi maa ngi koy safare boo nee nag bàyyi ñàkk gee bàyyi xel Tivaouane d' accord des na parce que lu mu woote 2012 ba 2020 da caa gañe fii Tivaouane te jeunesse ñoo ko gañe dañuy ñaan rek mu yokkaat taxawaayam ci jeunesse Tivaouane bi yokkaat taxawaayam ci Tivaouane parce que moo njaboote ñëpp nag. Mm. mais ki la àndal ba nga fal. Mm. mënoo ko yemale ki xeex ba ba bëggoon bëggoon ba bañ nga fal donte nag moo njaboote ñëpp. Mm. moom président mais jàpp nga ni président de la république politique de jeunesse bi mu war a def ci Tivaouane maanaam mu ngi ciy góorgóorlu mais des na. non non des na. Ah, parce que xam nga lu mu ñaaxal ñëpp mooy événement yi passé Tivaouane ni xale yi génne dalay leer ni la xale yi lu ma sara am ñoo naan ànd ngemb président de la république kon est-ce que jotul en tant que koo xamante ni xaritu président nga dégg naa ko mm-hmm. te dégg naa ko la fonk la fu ne la la teg mm-hmm. nga def benn discours ci président pour mu gën a waat bàyyi xel jeunesse bi Tivaouane bi au moins delloo la njukkal non dañ koy ñaan yàlla mm-hmm. man jeunesse bee ma yónni ci moom moom son excellence mun naa xam ne de jeunesse su département de Tivaouane surtout mais jeunesse su commune de Tivaouane xale yi bugg nañ ko leen xaw parce que Tivaouane am na ay usines yu fi nekk département bi ICS mi ngi fi MDL mi ngi fi ba ci terre bii nga xam ne si doomu Tivaouane lañ ko jox mu yor ko Tivaouane xaj nga ci mais Tivaouane ñu seen bopp lu ko waral xaw ma Tivaouane ci boobam amul métier bi fi gën a am sonal nit muy Jakarta xale bu jaaxle Jakarta ngay yi man lépp nañ ma ay jakarta lépp man lebal ma mais duñu ma fay. Mhm. mais nag bu ñaan yàlla président Macky sàll mu gën a taxawaat ci jeunesse Tivaouane. Mhm. donte ñëpp nag waaye nag ci particulièrement nag Tivaouane. Mhm. financement yi nga xam ne programmé na ko. moo xam DER la. moo xam la. moo xam yeneen ak yeneen ak yeneen. taxawaan am na beneen taxawaat ci jeunesse bi. ah ñu koy ñaan yàlla mu gën ci bàyyi xel Tivaouane. bi ci des mooy. formation yi nga xam ñu ngi koy defal nit ñi ñu ngi ko ci ñaan mu gën ci bàyyi xel ci wàll man kat sama waay la nga xam naa su ma ko ñaanee dina ma ko defal man xam naa loolu jërëjëf mbokk yi gis ngeen ko mu ngi noonu alxaaji Mbégi Jóob ak moom Ndokh TV tey Serigne Adi la ñu seet si woon di waxtaan ak moom Tivaouane d'une manière générale ah. euh, ki nga xamante ni mooy euh, coordinateur mouvement bu rëy boobu ñuy wax tànn di jàppale président Macky Sall mais Adi Tivaouane ni mu demee naka nga gisee Tiwaawan ci monde politique bi. waaw ñun daal li may li ma ko gisee bëgg ko yéene ko nañ ko jëlaat tegal ko ci ma Macky Sall man loolu lay ñaan yàlla loolu laa bëgg may ñaan nag responsable politique yi nekk Tiwaawan yëpp ñu fa yéene ànd doon benn jox président Tiwaawan. mais est-ce que jàpp nga ne loolu mën naa nekk. waaw mais dañ koy jéem rek fii lu mënul nekk amul. fii lu munu ne amul yi boo gisee jubóo yi fan yii ci politique bi fii lu mënul ne amul te yooyu gën a compliqué te ñun nag dañoo am kilifa nag. jàpp nga ni ni cercle cercle politique tuuti mën nañoo dem ba bokk benn. benn liste pour jox ko président de la. man daal moom lay ñaan yàlla président nag mooy suñu kilifa ci politique bi nag. Hmm. lu ko neex moo fi am. ma ko loolu tey lu ko neex ci Tivaouane fii ci politique. Hmm. moo fi am ginnaaw ba mu ci waxtaanee xale dinaa di tijaan Serigne hmm. ñu bàyyi ko xel. waaye daal ñu ngi koy ñaan. na leen woo waxtaan. ndax njaboot moo leen njaboote. te ay njabootam lañu. jubóo nag li am Tivaouane nag moo am partout. ci politique bi. Mm. Mm. waaye daal ñu ngi lay ñu ngi koy ñaan ah mu waxtaan ak ñoom te man jàpp naa sax dara amul ku ne daa nekk sa camp bopp rek kon di liggéeyal di liggéeyal ma président Macky Sall. Mm. bu yaatoo day gën a yaata rek day gën a yaata. bu bis ba gëtee nag. moom dina xam ku muy waxal ak ku mu fay te bu waa ñëpp ñu ànd nekk benn rek jàppale ko. jàppale ko joxe président eh. Macky Sall. ci waawan ñun nag ñu ngi engagé wu waat man ADC. mais ci foofu laa bëgg a jaar bala ngaa dugal émission boobu ADC en tant que responsable politique. Mm. est-ce que xelam dina dem ba nekk ci bëgg a nekk député départemental de Tivaouane wala bëgg na nekk maire de Tivaouane wala lan. non ñun doxuñ ci yooyu sax doxuñ ci politique député maire wala leneen wala cër. Mm. ñun daal ñu ngi liggéeyal son excellence président Macky Sall te moom xam nañ ñu koy liggéeyal te xam nañ nag am nañ cofeel ci moom. te xam nañ ni li ñuy woote dëgg la ci ñun. kon li gars yi di xëccoo fii ay député ay maire loolu intéressant xam nga ñun nag ay taalibe lañu. Mhm. ñun xëccoo ñu daal yow boo war nga xam ne man ADC xëccoowul. Mhm. dara mhm. sañ ñu ko suñ tël xëccoo. mais audace bi ADC am ba day wax ci président de la république day wax day wax jàkk di wax par rapport du ci nëbbatu day wax directement loolu lan la audace boobu lan la. waaw damaa am cofeel ci moom dama gëm li ma nekk man ragal pété dafay xañ cër. may du xañ wërsëg sama wërsëg président Macky Sall yoru ko mais cër bi nag man dama koo jël assumer sama responsabilité moo xam saaga moo xam xas moo xam xuloo al amin daf moo xam ne ma yaa ngi yëg ci garab gi bi ma koy yëgal yaa ngi yëg ci ko garab am na ñu jël xeer di la sànni waaye bul gestu wala ngay wàcc jël xeer di leen fay di rek man lu bugg ba léegi lu laa gëm lu ne dégg naa ko mhm. waaye li américain na ay don't care ay don't care ay mbokk yi dégg ko mu ngi noonu sama engagement nag moom mhm. tey laa ko gën a tey laa gën a feddali sama diggante ak son excellence président Macky Sall fa ma nekkoon tey la raw fa ma nekkoon man sama diggante ak moom parce que sëñ Babacar Si tey la raw parce que si laasman asalaamaaleykum mbokk yi dégg ngeen ko mu ngi noonu président Adissi bu mouvement tànn tey loolu lañ doon waxtaan mais bala ngaa ko salaamaaleykum lan ngay wax ci Mame Ndokh TV waaw Mame Ndokh su moom suñu maam la turandoo bi suñu maam la ku juddoo Tiwaawan démb rek xamoo kuy Mame Ndokh man xam naa ko bu baax turandoo télé TV bii. Hmm. man xam naa kuy maam ndox mi suñu hmm. maam la woon suñu lépp la woon tabarakallah hmm. di la ñaanal yàlla nag. sa taxawaay rafet nañ ko de. partout dans le monde. sa taxawaay rafet nañ ko. li nga liggéey ci Covid bi xaalis mbeng yëg nañ ko. di la ñaan yàlla yàlla nekk ay télévision yi télévision yi télévision sa barke maam. liggéey nga ko. sa waajur liggéey na ko. sa maam liggéey na ko ci kër gi kon yàlla na yàlla taxawu yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla jàppale yàlla na yàlla teral ci dara yéen bi salaam yi ñëw yëpp yu ndaw la yu mag yaa ngi ñëw ci kanam yàlla mbir yi la mm. yitte du mm-hmm. leneen. Mm-hmm. man yitte ko mu ngi noonu waaye nag maa lay yóbbante ci président de la république Macky Sall moo ma waxoon ne dina ma embauché moo ma waxoon ne sa premier salaire maa la koy jox comme xaritam nga nag. maa la wax te nga waxal ma ko ne ko nag sama xarit be Pape moom aussi ci jeunesse bi la nekk te jeunesse bi déggal nañ ko. mbokk yi dégg ko mu ngi noonu Alxaaji Mbégi Diop ak Mame Ndokh TV tey ki ñu invité woon mooy euh, président Hady Sy ñu ngi leen di ziar bu baax nii lañ koy defee incha allahu rabbi ak yeneen responsable politique yi fi nekk ñi bokk ci pouvoir bi ak ñi bokk ci opposition bi yëpp lañuy woo jàllaleen Ndox TV ndax Ndox TV ñëpp ko bokk alxaaji mbégi dem ak moom Ndox TV jërë ngeen jëf